mu ngi doon jàngale yi nga xam ne dafa laab ak yi nga xam ne dafa sobe jëmm yi laab nag tekkuwul ne mooy yi nga man a lekk mooy yi nga xam ne bu la taqee mën ngaa julliwaale ak moom ndax du sobe bu soppee ndox ndox ma laab na waaye mënul laabal dégg nga loolu lañ ci namu dana jàngale bunt boo xam ne lim ci jàngale mooy yi nga mën a yi nga mën a lekk ak yi nga mënul lekk yi dagan ñu lekk ko ak yi dagan ñu lekk ko dafa daal ñu ngi tolloon ci jamaat ne laab na dégg nga wala jamaat ak jamaat laab na woo moom gis mun jëmm la xëyru xayin goo xam ne dundut jamaat jëm la jo mooy jëmm joo xam ne dundut wa mun fasilun jugeewul ci luy faccee anu ci lu dund kon jamaat mooy loo xam ne dundut jugeewul ci luy dund nen ak soow ci luy dund la du jamaat dégg nga jamaat yi comme <coughs> lem wala déedéet lem du jamaat parce que lem ci yem ba waaye mboolem jamaat yi mooy nga xam ne jógewul ci luy dund laab na te dundut bant yeeg téere yeeg eh, ndoxam ward yeeg yëpp laab na illal muskil lu muy aji mandile lépp loo xam ne jamaat la waaye dafay mandile comme sàngara xam nga ci Mm, mën ngaa wax ne rek beneen la rek lay mhm. jugee ah mu jugee si ndoxam raisin wala yi demee noonu wala ndoxam tàndarma tàndarma suñ xooj wala bési buñ xooj wala ceeb yooyu yëpp sàngara mën na ci jugee waaye yooyu jamaat la ay bés yeeg yooyu jamaat waxoon nañ nag lan mooy euh, sàngara si nga xam ni mooy sobe ak si nga xam ni du sobe wala xay yaa nga ji dund lépp luy dund laab na moo xam rabu géej la wala rabu jéeri moo xam ci lu laab lu juddoo wala ci sobe la juddoo ba ci lu juddoo ci ay kabine laab na ba ci xaj ba ci mbaam xuux laab na lépp luy dund daal laab na waaye la taq ci yaram ba nag loolu moom atteb loolu la yore la taq ci yaram ba bu dee sobe la loolu bu la laalee loolu sobe la rab yu dëkk ci ay kabine bu la taqee du moom mooy sobe waaye nag kabine yi la taqaale sobe la da nga koy raxas waaye bu bu ñu raxasoo rab yi ba mu set man nga koy xenu julliwaale moom ndax ma ngay dund wa damu ak ronqañam lépp luy dund ronqañ yi ci moom laab na waaraqoo ak ñaqam lépp luy dund ñaq way seb ci moom laab na dile dafay lekk sobe sax ñaq wa laab na dile ku màndi la mu màndi ba pare tàngoor wi jàpp ko muy ñaq ñaq wa laab kon lépp luy dund ñaqam laab na wala waabu ak ay yuutam yuut yay génn ci gémmiñ ga moo xam dafay nelaw wala nelawul laab na ba des yuru zone yi nga xam ne nii lay génn xam nga nit léeg-léeg bu gémmiñ gi fu di fuur foofu yuru zone yooyu kooku sobe la su fekkee ne bis bu nekk dana dana ko dikkal yu lu mel noonu dana ko dikkal benn yoon kooku laab na jégal nañ ko sobe suñ ko jégal la ndax sobe moom su lay taq bis bu nekk benn yoon dañ la koy baal kon ko mënul di ñàkk wax te bis bu nekk mu wax ta saa yu waxee gémmiñ gi dana fuur si wet yi gu zone googu kooku dañ ko koy baal waaye bu fekkee nag lim koy dikkal du bis bu nekk léeg-léeg mu tëb léeg-léeg daal fuurit moom génn léeg-léeg du génn danay tëb su boobaa loolu bu ñëwee sobe la da ko kon yuut luy dund yuutamee sobe des yuur yu zone yooyu yu yooyu di génn ci gémmiñ ga Dégg nga waaw yooyu moom sobe la ba mu xaatal ak ngeen xit laab na ba bayduhu ba derit laab wala wàkk la li la lekk moom loolu di dund na ji sobe loolu di dund laab na ronkañ ñaq ya yuud ya xanaa yuudu xañ yooyu te euh, zone ñen ya nen ya yooyu yëpp laab na di la day lekk sobe ilal masir lu mooy nen bu nëb ba nen bu nëb mooy nen boo xam ne dafa mujj deret la léegi wala mu mujj nekk ay suux te nekk gut cuuj bu ma sëkk wala nekk na cuuj waaye cuuj ba dee na loolu mooy nen bu nëpp bu ba nga xam ne boo ko tojee deret la muy dina nekk deret loolu moom nen boo xam ne koy toj deret ji génn kooku sobela la boo ko tojee suux nga fay fekk sobe la fee cuur bu dee nga fay fekk sobe su fekkee rek la weex leeg lu zone li pëdëm ba dañoo jaxasoo waaye xeñut kooku moom laab na <clears throat> wal xaari jogaa ji génn baadal moo ci gën a dee xam nga lu dund lañu wax laab nag la génnee ci moom la génnee ci moom yuur yeeg yooyu yëpp ci la bokk waaye nag bu fekkee dafa médd lay génnee ci moom sobe la lépp loo xam ne bu méddee sobe la lay génnee ci moom moo xam ronqañ la ñaqlaam yuutlaam ñadaxriyaam nen yaa yëpp parce que jëmm ji léegi sobe la loolu la mooy bu meddee sobe la comme loo xam ne boo ko daggee mu deret ju yoon bu meddee sobe la lay génnee ci moom xam ne amul deret ju yool yooyu moom bu meddee laab na kon bu meddee lu ci moom laab na loo di te dagan naa lekk wala ñu sib koo lekk waxoon nañ ne laab na kon lay génne ci moom gannaaw buñ ko rendee laab na wal xaariju gi du nen rek de mooy ronkañ lépp lu génn baadal mawti mm, lu mu ci na mooy gannaaw mit waaye du rendi rendi bokkut lu ñu rendi laab na la génnee ci moom laab na xanaa muy lu xaraama lekk lu xaraama lekk waxoon nañ ci gannaaw ne boo ko rendee it la kon lay génne ci moom si mën boobu wala munu aadamiin ak soom doomu aadama doomu aadama meewam laab na moo xam góor la wala jigéen góor ñi am ah, na meewam góor jàngal na ko de waaw maanaam meewam doomu aadama daal laab na jullit la wala xeefeer la illal mayit lu may doomu aadama bu dee doomu aadama bu dee dañ na sobe kon soowam sobe lay doon lu nekk sobe lu génnee ci moom sobe lay doon waaye loolu wérut wax ji lott daal mooy doomu aadama buy dund ak buy dee laab na la génnee ci laab na kon lu meewam doomu adama xataa bu dee li gën wér mooy laab na wala bu nu xëyrihi mais am lu dul doomu aadama rek taay bu nu aji topp yàpp wala waaw su fekkee rab bi laab na dégg nga dagan naa lekk soo ma laab na dagan naa lekk bu dañ ko si ba lekk soo ma sobe la ci dañ koo sib laay bëgg wax mhm. maanaam bu la taqee dañuy sib mu julliwaale ak moom waaye nag xaraamut boo jullee dana baax su fekkee dafa xaraama lekk soom mo sobe kon loom mayom lu dul doomu rek dafay topp yàpp ba bu fekkee laab na dagan naa lekk buy dund ak buñ ko reyee yëpp sooma dagan bu méddee nag soo ma dafay xaraam day nekk sobe luñ si ba lekk buy dund ak buñ ko rendee soo ma dañ koy sib bu fekkee dafa medd soo ma sobe la dégg bu fekkee lu xaraama lekk la comme fas yi seen soow sobe la bu dund ak buñ dee moo xam dañoo météo dañ leen rey kon ñettaam lu dagan lekk luñ siba lekk lu xaraama lekk lu dagan lekk ak luñ siba lekk bu ñuy ak buñ leen rendee seen soow mi du sobe bu dee luñ siba lekk soow dañ ko sib rek bu lu dagan lekk soow mi jaadu na waaye ñoom ñaar ñoom ku lu xaraama lekk nag moom soowam sobe la rek moo xam mu ngi dund wala lafa dee dañ ko rendam renduñ ko wa bawlu ak tuur ndox waasiratu ak dem duus min mu baaxin ci lu dagan na lekk kooku dagan na laab na maanam si laab la bëgg la nekk di jàngale ni tuur ndox ak dem duus bu dee dañoo juge ci lu dagan na lekk laab nañ moo xam ba ñuy dund la wala gannaaw boo leen rende mu ne waaye illal muxtasi lu muy aji dundee bi najisin su sobe luy dund sobe luy dundee sobe moo xam da koy lekk wala da koy naan am nga si loola leer wala nga koo njort rek comme ganaar yi ak janax yi dégg nga ak kanaara yi yooyu seen tuur ndox wala seen <coughs> dem du sobe la <coughs> kon lépp lu dagan nekk comme xar ak bu dee dundewul sobe bu tuuree ndox wala mu dem duus loolu laab na bu dee day dundee sobe nag tuur ndoxam wala dem duusam sobe la lu xaraama lekk ak luñ ci ba lekk moom seen tuur ndox wala seen duus sobe lay doon moom it kon luñ ci ba lekk sooma lañ wax ne laab na waaye dañ ko sib sooma waaye dem dusam moom sobe la lu xaraama lekk nag soom ak dem duusam yëpp yem sobe la lu dagan a lekk nag moom soom ak dem duusam yëpp yem laab na moo xam dañuy génn ba muy dund wala ko rend ba pare mu door a génn waaye su meddee nag la génn ci moom lu mu a doon dafay nekk sobe bàyyi ko xel kon wa boolu ak tuur ndox waa asirot ak dem duus laab na min mu baaxen bu jugee ci lu la gën a lekk nga day gis ne bu jugee ci luñ si ba lekk wala lu xaraama lekk sobe la illal muqtasi lu ma aji dundee beneen si sobe wa xayun ak waccu waccu laab na waaye waaye ilal mutaxayir lu may wëcci aji soppeeku mm-hmm. ani taami ci melo ñam dégg nga wëcci bu soppeeku caa est-ce que ñu dem ci biir wëccu bu soppeekoo ci meloñam <clears throat> illal mu illal mu taxeel ma yeesu ba ni taami ci meloñam bu soppeekoo niroowut ak ñam wi su boobaa sobe la waaw ñam la sobe la di la niroowut ay dem duus waaye wëccu bu génnee mel ñam wi baax na bu niroowut ñam sobe la kon mooy wàcc bi génn mokk bu baax forox soppeeku daal sooba sobe la hmm. gàll am na ñu ne moo ñooyam am na ñu ne déedéet gàll moom balaa muy nekk sobe rek foo mu niroog dem duus dem mel ni ay dem duus tasaw xunn niroog moom hmm. waaw waaye bu dul loolu laab na gàll ne bu nekkee dafa forox nekk ndox mu forox niruwu dem duus ci xet niruwu ko ci dara soo wàllu laab na bu demee ba niroog dem duus na nga xam ne lii nit mën naa ñëw sax xet da koy koy seexlu bu baax a baax boobaa sobe waaye wàcc moom bu niroowut ak ñam rek sobe la dégg Hmm. wa safraaw ak xayalit safraaw ndox la boo xam ne bu zone la ñu feebar ñaar dañ koy génne dañ gis ko feebar day génn ci biir ci biiram ndox hmm. mu mu mu zone dégg nga loolu mooy xayalit kooku laab na ndaa am nit ku mu ngi dund lay génnee ci moom noonu ak xaaxandiku xaaxandiku yi nga xam ne nit ki koy mu mel ni ñenn di jugee ci dënd ba waaw loolu laab na wa maraaratu mu baaxin ak wextanu lu dagan wala luñ siba lekk su fekkee dañ ko rendi wa wextan wa dagan parce que xaaji lu rendi rek la hmm. Hmm, su dafa medd wextan wa sobe la wa damun ak deret joo xam ne la muy sox puufuwut <clears throat> deret ju puufuwut mooy nga xam ne ni mu ngi ci biir yàpp wa nga xam ne boo daggee yaram bi muy tuuru loolu sobe la waaye ji nga xam ne nag dafa nekk ci biir yàpp nga xam ne boo ko laalee ni daana ni waaye moom du deret ju wadd kooku na waaw loolu moom bu kon kenn du lekk yàpp moom foo mu boo koy togg foo mu am deret joo xam ne moom foo mu taq la kon deret ji sobe mooy yi nga xam ne booy dagg rek muy wadd deret jee taq ci yàpp wala kooku moom laab na waaye deret ji wadd di tuuru kooku mooy sobe naka noonu xotti xol ba deret ji wadd noonu xam nga boo rendee dana am ji wadd yoo xam ni buy xotti yaram wi du bokk buy xotti yaram bi bay wadd bu doon jël xol ba di ko dagg di xotti xol ba dara jooju di wadd kooku it laabut booy dagg yàpp wi di ko daggati dara ji sib di wadd nag taq ci barabu rendi ba kooku laab na ndax bokkul ci di wadd dara jee taq ci yàpp wi kooku laab kon loo xam ne booy dagg muy wadd kooku loolu mooy loolu yi nga xam ni nag moom hmm. dafa taq ci yàpp wa kooku moom sobe hmm. waxuñu ne nga daggal yàpp yi nan nànk dagg yu sew pour lépp luy dara wadd déedéet fa nga dagg hmm. la wadd noonu dara jee wadd noonu mooy sobe dara ji nekk ci biir yàpp yi nag kenn mënu ci dara yi nga xam ne dafa taq ci kaw yàpp yi kenn ci dara loolu laab na wa miskun ak gët gët ak misk wa faratu ak ndabam la xam nga gëtt mbiski deretu kiwal rek la deret ji mooy dem ba soppeeku nekk gët wadd lumb ba nekk ci lay jël dog rek mu wadd nekk gëtt gu neex xet gu deret la léegi boo xoolee <clears throat> ndabam la ci luy dund la jugee waaye laab na bi it cosaanam deret la waaye laab na <clears throat> kon der bi muy nekk di waddee ci kiwal gi ak gëtt ga nekk ci biir nga xam ne cosaanam der la yooyu yëpp laab nañ wa zarun ak mbay boo xam ne jëmbatee nañ ko beneen si ci sobe bu fekkee nit ki dafay bay suuxatee ko sobe ba mu ñor dara nekku ci moo tax yaa ngi tose ay kii wu yooyu pour li ñuy bayee gën a gaaw a meññ dara nekku ci waaw liñ bëgg nag mooy bu fekkee dañ ko jëmbatee sooy ba màgg balaa nga ko lekk nga raxas ko rek waaye dara nekku ci balaa nga ko xen it di jullee moom wala ngay war ak ka kaa bëgg nga raxas ko waaye buñ ko suuxatee sobe moom baax na mais xam nga lu ñuy suuxatee sobe mën naa am sobe bi taq ci kaw nii hmm. nekkul sax bu màggee waaye bu fekkee toujours dañ fay def sobe hmm. mën naa doom yoo xam ni dara sobe si laal na ren loolu tax ñu nga raxas ko rek waaye nekkul ne meññ meññ moom dafay am sobe wa mm-hmm. xamru sàngara soo xam ne taxajjara formé wu na sàngara bu demee ba way man nekkutul lu mën a mandil hmm? ah kooku hmm, laab na mm-hmm. waaw waaye nag bu fekkee boo ko tooyalaatee rek hmm, seeyalaat ko mu mën a seey mën a mandil kooku sobe la kooku sobe la bu fekkee ne woy na ba nga xam ne lii moom mënatoo dara ba mandil kooku li taxoon mu xaraam dañ na mooy mandil ga laab a aw xulli wala ñu beneegar ko sàngara bu demee ba nekk beneegar maanaam ba léegi mu ngi kom comme ndox waaye mënatul mandil parce que dañoo rey dagat ba ko doon mandil wala boog yàlla yàllaa ko mujj dindi dangat ja rek hmm. maanaam yàgg yi mu ba amutul dangat mënatuñ maa jël kenn vinaigre la wala dañ dañ ko liggéeyee noonu dindi dangat ja defar ko ba mu nekk vinaigre su boobaa lu la xam nga vinaigre am na ci yoo xam ne sàngara la ci sa li sàngara la de waaye mënatul màndil moo tax mu laab kon bul xool naa je vinaigre nangam sàngara xaraam na yàqal ni muy seen ñam yi déedéet <coughs> vinaigre buñ ko jëlee ci sàngara waaye nag fexe nañ ba léegi mënatul màndil wala def nañ ci yeneen liquide yoo xam ne tax na mënatul màndil soo boobaa loolu kon sàngara googu bu demee boo woyal boppam wala ñu def ci ñu def ko muy mujj nekk benegar soo boobaa loolu dafay dagan mënatul màndil waaye su fekkee mu ngi mën a màndil nag ba léegi dafay xaraam voilà Bénéker nag yu bëri yaay sàngara si dañ ko jële su ko defee yooyu mooy jëmm yi nga xam ne laab na moo war a dugg ci nga xam ne dafa sobe incha allah in uridul islaam astata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi